pile yéenekaay bi démb ci tisbaar ay boor yi deux ci digg bëccëg gi ca benn tracteur bu fiir ay élèves yu jàngi woon ba wàccoon di dem di ñibbi ñetti élèves faatu ci ñoom ñëpp ay jigéen la seeni at yéenekaay bi nee nañu ñoo ngi tolloon ci fukk ak juróom bu weesoo ñetti xale yu jigéen yooyu ñàkk seen bakkan ci l'accident bi l'observateur mi ngi ñuy wax ne am na yeneen ñaar yu ci jële ay gaañu-gaañu Moussa di benn waay bu fekkee l'accident bi musiba mi waa ko doon dawal ba mu defee l'accident ba l'observateur nañu dafa wàcc daw bàyyi fa oto ba ginnaaw bi ci la ko sandarma yu nooto jobaas yi nekko kirtim jàpp libération nañu ab tracteur bu dof bu doon def yëfi dof mu jural waa taset aw tiis ak musiba wu rëy ñetti xale yu jigéen ñu toll ci ans ak ans ñoo ci ñàkk seen bakkan am na ci blessé yi koo xam ne dañoo dagg tànk ba ki doon dawal tracteur bi def accident bi libé nee nañu bi ko baax mauvaise note ñàkki jàngalekat la gis ne moo xajamal année scolaire bi ndax ca Kolda dëkk ba manqué lu toll ci 729 ca Tamba dëkk ba manqué lu toll ci 650 enseignants ñu jàngee ci xët mu njëkk Vox Populi ne Ousmane Sonko ma ca loxoy yoon dellu na ca grève de faim ba mu ne woon kenn ci avocat moom Ousmane di maître li di ko dëggal ci yéenekaay bi ba dañu wax ne démb ci talaata ji ay boori cinq heures ci ngoon ci la tàmbaliwaat grève ci yéenekaay bi yéenekaay beneen mu di Source moom li mu bind mooy Sonko yëngu-yëngal la woote nee na dafay dellu ci grève de faim bi ngir solidarité patriote yi ñu jàpp tëye leen ci kasoy réew mi ci lu dul yoon bés bi le jour nañu Sonko ma nga ca résister nga ci jamono jooju état bi moom désisté na agence judiciaire de l'état bi ne woon dafay dem ca yoon récuser juge Sabassi Faye agence judiciaire de l'état bi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne dellu na gannaaw annonceur de l'État yi teg ci suuf waxi récusation augmentation dig yokku ci njëgu mburu gi Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne boulanger yi ci réew mi moom la bëgg nee nañu li ñuy daj ci mburu mi mburu daju ko cib taal ndax yi ñuy defaree mburu daanaka yépp yokk courant bu seer bi ñëw bëgg leen doggale moo tax ñu bëgg a yokk fukki dërëm ci njëgu mburu mi ministre du commerce Abdou Karim Fofana doon it porte-parole gouvernement bi di ñu wax ci le quotidien ne njëgu mburu mi kenn du ko yokk duñ ko ko yokku lëg ko seetaan mu ne boulanger yi a jaar toog a gouvernement bi ñu waxtaan ba taskatu télé yeeg rajo yi naan dañu yokk njëgu mburu mi Abdou Karim Fofana dellu fàttali jéego yu état bi def ngir mburu mi bañ a seer ci askan waaye it ngir lakk mburu bañ a tar ci lakkati mburu yi ca mesure ma ca yox subvention bu toll ci 60 milliards ministre Abdou Karim Fofana ñu seeti ministre bu yees bi ñu dénk économie plan ak coopération di Doudou Ka moo amee xët mu njëkk journal L'Info passation de service bi woon démb diggam ak Oulimata Sarr ndeforom gaz ak ndeforom pétrole nee na dinañu càmbar bu baax a baax bolo ceeg moderniser lu ci mel ne FONSIP FONSIS DER 3 PT ak ADPM ba seenub liggéey gën a feeñ ci économie nationale bi lu jëm ci problème emploi jeune jeunes Doudou Kane dinañ ci gën a taxaw ba gune réew mi am xëy mënu bañ a jàpp bu ko defee ñu génnee seenum xel ci mbiri immigration clandestine Cheikh Abdou Mbacke Baara Dolli bu coalition nekkal askan moo xëy nekk ci xët mu njëkk journal La Témoin ma nga fay wax ne ci candidat yi bëgg a jiite réew mi moo ci gën saat set ñu gisaat ko ci xët mu njëkk la Sénégal bi mi ngi ñuy wax ne am na ay pexe ci candidature yu bari yi ci élection présidentielle yi 2024 yi ci direct news yi mu indi bi ma nga fay xamleet ne dana def kemtalay kàttanam ngir Ousmane Sonko génn ci kaso bi ndax libération Ousmane Sonko nee na demande sociale la Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dolli ci ne waa kër Khalifa Sall yi di waa taxaw seet si woon nañ man ngir ne dañoo bëgg a dugg ci suñu groupe parlementaire bi waaye dama koo bañ ba tëdd ca naaj wa ndax ñoom waa taxaw ñoo fi war waa yeewi wóor yu rëy bëccëgu ndara kàmm ci kanamu Sénégal gi yépp Crédit di CMS lu rëy fa ubbi libération ñu naan ko Aïssatou Gassama moo fa détourné 30 millions yéenekaay bi nañu benn client bu fa am